Babacar. waaw waaw waaw. restaurant bi laay laay dem. ah. restaurant bi restaurant bi. bi bi c'est ça la bi c'est ça. mais garaawul. ça naka mu naka tàngaay bi. dëgg bu baax. naka tàngaay bi. dëgg baax. ma naka tàngaay bi. waaw ay waay boobu de jàng de dëgg jàngi rek waaw. coo. jàng. lii di journal. waaw. Eh, bye bye. ah d'accord. góor ah. ma am naa fii loo xam ne dina la arranger ah su moo ko doon utiliser. ah. ma ne am naa fi loo xam ne dina la arranger sama maam moo ko doon utiliser. ah xanaa da ngaa bëgg a rek ba bay la. déedéet ma ne am kii wal nii sa nopp am. xaaral xaaral xaaral tali bi dafa xat trop xaaral ma xool xaaral. Eh, moo tax may jàmm sa waay déggoo ma am. essayel sa nopp. li sa nopp nopp. ah waaw waaw waaw. yaa ngi may dégg. non non maa ngi dégg. <laughs> nga yaakaar ne ay jàng la. ku tàggee sama jàng yi. <coughs> doon musul doon jàng. ah déedéet rakk nga dëkk bi. moo tax jàmm sant naa ba sonn kay. waaw waaw waaw moo. c'est sama laa ko jëlee. waaw sama moo ko daan utiliser. waaw waaw boo kiiwee boo tourné rek mën nga ma may. ma waaw waaw waaw. baax na. <laughs> ok jërëjëf waay. waaw waaw. waaw baax na. fayagoo de ah, góor gi lii ma la jox nii moo ëpp fay de. ah lii ma la jox nii moo ëpp fay. ah, ah yow tamit na ah. waaye léegi garaaw léegi delloo ma ko ma jox la sa 1500. bu dee ma ne delloo ma ko ma jox la 1500. Ah, boo baa ngi dégg.

Bete ndëraan ndëraan day ja ay waay yéex naa dégg waay yéex naa dégg waay <laughs> oh bukki ab laal met faal ab lay nopp te ba tëj dëkk bi day jaaxi na daa dëggal dëggal dëggal buru yu neex yooyu ñu du dégg naa leen jàkk sama ne jurul dégg yërëm naa leen laa yërëm jurul dégg ñëpp amuñu caas oh, mana xoolal ma xam waaw man ëpp naa nga man nga gisoo sàccal trois lay nekk waaw trois la trois laa yor ko tagal tagal xoolal faa waroon jamu sa xuuli nga xam ne dafay sàcc baaxul koo yow baax Khoj, khoj, khoj, khoj. daa maa apporté maa. déedéet déedéet déedéet man maa njëkk a teg man maa njëkk a teg. saa mu ne ma mu ne ma mën naa mën naa mën naa mën naa laa kaay def tout la pion ma def sama waaw waaw. waaw waaw. Euh. xale. kii dof la. <laughs> yaa dox ba. waaw daf laa jéem. waaw jéem ah gisoo. xoj amu ne amu ne amu ne xamaloo jéggi paa. kël kël du kël. kon nan bàyyi. daa daa rek daa daa daa. waa kaay xoolal tey may naa la yow sa bay la fan nga sa bay la ah waaw eh, ka nga sa bay la may naa la di nga wax sa bàyyi léegi. waaw ah, bu boobu bàyyi am am ah, ah. oh, oh. man maa la may bi rek. waaw may ma mayaat ma man la ko may. waaw doxal tamit yu gaaw laay def man. man faalewu ma la. xoj affaire eh, xoj. vous avez avant avant kàkkin xoj su fekkee jàngoo mat. donc kan dàqante xoj bu nekk fi ngay def fi ma doole nii sa sa sa yaay laa sa baay laa doolaata beneen. rek. waaw waaw waaw di nga yaa waaw. dama lay jàngal xam nga jàng bi la la. waaw. soo ko soo ko soo ko école école si si bu jàngee école. waaw ah. jànga bu bu la loo ba nga jël ne mat mat. mathématique waaw. fëgg fëgg. kay

papa ne ma kii moo ko ah papa Jéema Cissé la gis. waaw zone. papa Jéema Cissé international. suñ lu ñu woowoon sax mu may ñu benn bal sax. vraiment vraiment wala mu may ñu maillot Sénégal sax ah suñu nijaay mi. kii kii kii kii ma kese la ko yow. jëlo jëlo moom caabi caabi oto bi gis nga ko. ah caabi oto bi. mën ma jë jë jëloon nga jëloon à à zéro mën ma kii man man kii waaw xa ka yaakaaroon kii kii naka naka. naa naa ko nopp yi rek moo yaa ko est ce que wér na. kii li mu boole moo bari daa tëx boole ko dof ba pare ñàkk xel moo tax dañoo doon sàcc caabi oto bi xam nga oto bi feeraay ñu dem ñu jaay ko partenaire. kooku nag kooku moo gën a nekk sàcc kooku kooku loo indi mu jënd ko. waaw lay jënd bu ko defee suñu sàccee ñu jaay ko ko loolu garaawul ñun duñ ci feeñ. ay ñaata yooyu. te moom nante la non loo ko jaayee rek garaawul moom loo bëgg rek après dara ko. waaw ñaata waaw rek ma xam ma xam

déggoo li mu tukaan. mooy yow lay lii da xanaa daa siiwul siiwul waaw léegi nan def nii. waaw nan nan ko jiwee noonu. li xam ni ñuy def. Pape Pape Naar. waaw Pape Naar Pape Naar ngay dem léegi. waaw xooxa. waaw soo xooxa. waaw nga nga ko saa nga ko ñànk moom yoon. waaw na na na dafa am ne xanaa question nag sunu yaay moo ñu may oto bi. waaw xam nga waaw nga ne ko dañu ko doon koo may. léegi pour pour ñu kalaandoo après ñu doon koy jaay ñaata ñaata ci man. léegi bu ñu laajee këyit yi nag te këyit yi mi ngi si moom moom mooy denc këyit yi nan la ñuy def day ñëw kii dañ koy këyit si oto bi ne déedéet nekk si ci armoire am la koy denc bu wàccee day wàccaale ak këyit yi kii di kii di nandite waaw léegi da nga appelé si kam tuur waa nga xam suy gont waaw suy gont waaw ah waaw ata heure bi ah ah waaw mu nekk doo nii nii këyit yaa ngi ci oto bi bu wàccee léegi si fàttu kay lay dem lay dem tëj oto bi gaale ko ci biir jël këyit dugal mo ci biir dañ koy bàyyi su ko ci mooy profité dugg ci biir néeg bi. voilà xam nga ma dugg ci biir foofu làq ko làqatu. Ah. ah su su lancé ba pare ba génnaat yow yaa koy woowu da ngay naan tey nag. waaw ngay woowu génne rek ma ne cas këyit yi gën a moom. dara ñu dem merci nan moo gën. man oh, oh, oh. Pape Ndar jaaxal ma Pape Ndar moom saa yu ma demee atelier bi ñu ne ma dem de Touba moom day dem Touba rek moom dem Touba Touba rek lay dem Touba rek Pape Ndar moom day dem Touba rek. loolu la dégg <laughs> loolu la dégg loolu ay dem Touba. xam naa moom màggal Tuuba fala dem hmm? Pape Naar fala dem ñaata yoon daal la koy wax wala asim mu ngi dee dégg nga li deret amu amu nekk nekkuloo ko liiru ko liyaaroo ko xaa moo xaa sa gémmiñ bi liir xaa wax xaa wax ndaa Pape Naar fu mu danga ne ah yow Tuuba waaw wér na mi ba ilax illa ma sama sama sama sama kii tere na fay sama oto man kenn mënu ko jaay oto bi amul kayit oh police yi dañuy dañuy négocier ak man rek cootali kii dégg nañu nijaay ah, waaye yow nijaay bari la la la la baru ba i nijaay say léegi tay ah yow foo demoon foo demee suba ba bàyyi dégg lépp lu ngeen wax xam naa ko ah. du tey rek de li ngeen fi nekk yëpp li ngeen fi mu ta wax yëpp xam naa ko ok kii dëgg di fëttu ak li ñu wax lépp lépp li nga bëgg a wax xam naa ko nag lépp lépp li ñu fi def lépp wax ko lépp dégg ko yow kër kër walu naa kër kër fen walu muñ la yow kër bi ngay wax bi ngay wax Madoumbe Madoumbe ah. bi ngay wax a bëb waaw ah. di ko wax tamit yaay dàggam bi ak dàggam bi lépp ko dégg daal bu la tax dëgg la kay dëgg la kay waaw yow nga foog yow loolu war nga bëgg ko wax yow ah war nga bàyyi wax loolu waxo maa jégul kay bàyyi ga ah? maa jégal ah maa ngi jëloon te li mu nekk nii yow li nga wax dafa ñaaw. dafa ñaaw loolu la ko wax dafa ñaaw trop vraiment. ah yow nga wax lu gën a bët loolu. waaw xam nga li nga wax waxal waxal li nga waxoon. ñun dañu doon kafa dañu doon kafa ak yow rek waxal li nga waxoon yow. Ah, nijaay dañu doon kafa ak yow rek waxal li nga waxoon loo waxoon. loolu li moo gën a galaaw nag. waxal loo waxoon. nijaay dañu doon kaf rek waaw lan nga waxoon kii ci bañ. maa waxuma ko woon dara waxal. dañu doon kaf rek. waxal ma ma wax ma la wax dëgg yàlla man. maa maa waxoon yow waaw sa jabar bi nga ba nga wax naa da nga am jaw fi amoo jabar maa ko wax wax dëgg alo ma sama wax sama wax sama wax sama wala asim da wax sama diggante ak yàlla maa ko wax man dem naa ci néeg boobu xool gisoo fa kente yaay ñoo xam da nga am jabar amoo jabar o maa ko wax sa waay loolu man man damay wax sama diggante ak yàlla munu me da nga julit parce que soo jëw ba njaafa la danga da ngay wax ni yaa jëw ja jëw boo maa ko wax ah moom maa wax ni da ngay fat femme bi maa ko wax yooyu yëpp maa ko wax waaw maa wax ni sa waay lu tax waa koy mee waa koy danga kaa ko dina far saf da kàcce tey wélo sa napp yi neexul ma maa ko wax te te keroog yaa doon wax bi nga koy waaj a rey yow yaa nañ ko rey nañ ko jëm ci mbàq yow yaa wax loolu um na yaa yaa yaa commencé rey bi kat yaa seetaan film am sa projet rey waa lay lay bi lay lay bi la jógee wax xala lay bi dama wax xala yàlla la waaw lay bi ah, mën a wax rek waxal yàlla waxal mu ne la waxal la la ma ju lakk bul tañ tañoo loolu ah waxal da nga mën a wax lépp maa wax lay bi waaw bi ma waxee lay bi la wax man la acca nañ ko rey buñ ko reyee dugal ko ci teen waaw waaw yow yaa yow yaa forcé affaire yi mënoo kaf yaa ko forcé kafoo de yow yaa si daan film yow fekk ma ni ma nañ ko rey nekk gol nekk gol daanu nañ daanu lekk waaw yow dimbali ma daanu nank lekk daanu nank lekk daanu nank lekk waaw léegi kon yéen yéen loolu yëpp wax ngeen ko fii waaw dañoo noon jaay kër gi sax projet bi mujjën tëral mooy jaay kër gi ñu daw xam bopp wax si kii xaal kii moo ak sàcc kayitu oto yëpp jaay ko واخليك لما انا واخليك واخليك يبقى دول باكو دوك ديك تاي تاي تاي تاي بدي بطه بديك دول يبقى بتودار وهي دي المخدتل ها ها دي بطه بديك دي لو بديكو لو واخدك داكو ديك daf nga rek nga ratatati fii yëpp nii dëkk yéen dëggal baa bëggoon rey yéen dëggal baa bëggoon rey lii natt yàlla la ah amul nattu yow dof nga yow dof nga. paka yu pees yi ñu tàmb ji nii. ah yow yaa ci tàmb yow yaa commencé di ratatati man laaj dama ma ni pat. doo noppi bah, rek bah, looy wax looy wax ay ay déggoon nañu moo tax may wax. Ah, dégguñu tus. tous. Ba lay dégg de li ngeen wax moom maa koy dégg. waaw kay waxaatuñ dara foog fa tey fa taxawoon ci réewam fa. waaw baax na kon xam naa xam tey yéene di man rek jeex na. saa yi dara la ci de. affaire yi lay dégg appale yooyu la pour tëx yi la. wakal waxum waxal waxal parce que yàlla noonu la baaxee nag parce que hmm. yàlla mu am benn problème am problème kii nitu yàlla la nitu yàlla moom du nitu yàlla sax waaye baax na am nitu yàlla la kay waa xam nga nitu rek mooy nangoo liggéey nii di ñëw di jox sa njaboot waaw njaboot rek ko sonal njaboot rek ñaan yàlla may ko jawal ji la fet la fet yàlla ya, def ko mu ne ma nekk procureur jël jël koñ bi yëpp nekk ministre waaw waaw waaw ah ah Ndiaye dégg daal li ngeen wax mu nekk nu may nekkee procuré. ah hmm. oh, kon bu ngeen gën a leel ma nu ma. Ah. ngeen